li nga xam ni euh, daal tabarkala xew na démb ci réew ma muy lu mittee mittee mittee man defe naa Ousmane Sonko musul dund lu gën a mettee li xew démb maanaam ñu jël la dugal la prison d'accord politicien nga war naa mën a am ñu tas sa parti lu ne war naa mën a am mais xarit li nga xam ni euh, alquran in al ahada kaana masula bu liggéey yàlla da koy laaj muy kóllëre nga xam ne yàlla da koy laaj ñu gis na kóllëre gum am lante woon ak waa yeewi ak lenn ci biir gis nañu daal démb fa ay nitam nekkoon jëlee nañ leen fa muy ca mairie bu Dakar Barthélémy Dias changé na leen ginnaaw bi ñu changé ay nitu Ousmane Sonko fu baree baree bare dinañ ci ñëw waaye xam naa bala ñooy tàbbi ci yëpp waa kër Cheikh Bara Ndiaye euh, ginnaaw démb bi journal euh, Vox Pop waxee daal ni Serigne Bara bàyyi nañ ko ma nga ci l'hôpital dafa sonn loolu moo tax mënta ñibbi waaye waxtu yu ñu doon waxee daal démb journal Vox Pop dañuy Cheikh Bara bàyyi nañ ko Euh, day faj waaye bu génnee dana dem njaboot ga démb weddi nañ ko ba àdduna yëpp dégg ko tey jële ca Touba itamit euh, ku ñuy wax Babacar Lo moo yor kàddu ko euh, njabootuk Cheikh Bara Ndiaye gi nekk foofu la ca Touba am na lu ñuy waaj sax moom lañ bëgg a dem ca Touba daal di ñëwaat après ñëw ci waxtaan wi mm-hmm. daal di dem foofu la ca la xew ca Pikine muy lu doy waar loo xam ni allo salaamaaleykum waaleykum salaam sëriñ Babacar na nga def noo ngi sant bu baax kay mbaa nga jàmm antak alhamdulilah aywa Souaïbou de mooy wax ak yow alaaji Sanjoogu Mbeng mi ngi ci plateau bi ak ma jigéen Diop ñu bàyyi la nga nuyoo ñu dugg li nga xam ne mooy waxtaan jërëjëf ñu ngi leen di baax de ziara di nuyu alaaji Sanjoogu bu baax baax mhm. di nuyu mboolem ñi nga xam ne itam ñu ngi teewal Walfadjri ñëpp aywa sëñ mhm. Babacar lan nga euh, yore ci famille Cheikh Bara noo yor kàddoom yaa yor kàddoom ñun itam ak moom it sunu ñaari way jur ñoo bokk ndey ak baay noo bokk lépp seet lépp di ànd ci lu bari nag. gannaaw bi ñu ko jàppee ba léegi mi ngi fi état bàyyeegu ko donte ni tawat na lool lan ngeen di waaj tey foofu ca Touba. waaw tey jii nag danoo amoon yéene yi. Hmm. mboole mbokki Cheikh Bara yëpp ñu dajaloo. Hmm. waxtaan ak sénégalais yi def leen témoin ci li xew ci diggante Cheikh Bara. Hmm. ak ñi nga xam ne ñoo ko teg loxo. umpale wuñ bi ñu ko jàppee ak léegi ab biir la. jël si wi itam kenn ku nekk mooy xëy nañ suba. fekk ci biirum njabootam soxnaam ci ay doomam. ak soxna soo xam ne sax ñaar fukki fan la am moom ci kaso bi mu yeewu ko ñu ngénte ko ginnaawam ci biir ay taalibeem itam yóbbu ko mu tabaskee fa tam xaritee fa événement yi baree bari fa la ko fekk te bi ñu koy jël si tam nag euh, bokk na ci li ñu waxoon ne moo tax ñu di ko jël si mooy du jëmmam lañ fekk ci di ko jàpp hmm. amut lu mu def lu tax ñu naan moom la ñuy jël si waaye dañoo wax ne ay téléphone am hmm. la am ñu ci doon jëflanteel ba tax ñu war koo jël di ci def enquête hmm. téléphone yooyu itam ab diir bi ñu ko téye ak léegi wax nañ ne lu njut nañ ko seet nañ ko def nañ réquisition waaye gisuñ ci dara dara dara dara luñ koy war a toppee. Mhm. juge bi itam dëggëral na ko loolu ba bi mu ñaanee liberté provisoire itam may nañ ko ko. Mhm. gannaaw bi ñu ko ko may itam për procureur de la république gàntal liberté provisoire bi nga xam ne moom la juge bi mayoon Cheikh Bara Ndiaye. Mhm. loolu itam waral na jëmmi Cheikh Bara Ndiaye nag. yëg ni moom gannaaw ay téléphone moo tax téléphone am yooyu itam setal nañ leen ba mu set wecc. ba ñu delloo ñu téléphone yi itam téléphone bu soxnaam mm. ak téléphone yi boppam yëpp mu ngi suñu loxo delloo nañu ko mm. kon nag jëmmam gisatul ne war naa nekk ca barab booba mm-hmm. ba mu fay nekk daana ko nangoo muñ ndax xañ nañ ko lu bari mm. ndax nit koo xam ne mosoo joteeg nit plainte mosoo wàcc sa kaw mosoo fanaan ci kaso mosoo tëdd fu dul fa la soob ñu téye li ci kaso ci loo yëgut tinoo defoo laalewoo itam diirub lu toll nii tax na mu waxal ma boppam ci téléphone akub ci gisante ne ma tàggul ma mbooleem samay kilifa ne leen tabaski fekk na ma fa hmm. daanaa ko defee sama biirum njaboot defewu ma ko fa am xarit fekk na ma fa daanaa ko defee sama biirum njaboot defewu ma ko fa yu baree bari fa la ma fekk hmm. waaye màggal gii ñu jub si daal téléphone taxoon ñu téye ma samay téléphone set ba ñu yeewi leen ñu téye ma fa ki may war a àtte itam ne ma toppewu ma la dara setal ma delloo ma say téléphone may ma liberté provisoire procureur téye ma fa ak ku ca man di àndaale ci ginnaaw loola hmm. màggalu Sëriñ Tuubaa gii moom luy nar dox sama digganteeg ñàkk koo fekkee ñaar rek mooy li man a am benn sama jëmm dikk ak sama roof mooy ma ñëw ànd kook nit ñi màggal si wala ñu indi sama jëmm te du ànd ak roof ma ànd koog ñu ne ci biir bàmmante di ko màggal loolu yi nag booba ak léegi Cheikh Bara soobu na ci ci lu toll ci juróom-ñetti fan ak lu topp ajjuma gii nu dëgmal gii nu génn ajjuma gii nu génn ci la daanu malaise crise daaneel ko ñu yóbbu ko urgence bi ñu koy yóbbu urgence ci saasi ci lañ koy yóbbu réanimation Mm-hmm. waaye li li wér te wóor te ma tax xamal sénégalais yëpp mooy mm-hmm. ñu ngi di ay bokkam nga xam ak ko man di téye man ngaa ros ñu digg technique si waaye bu faatu woon ñu ngi ko koy jébbal waaw sénégalais yooyu ñu ngi leen di xamal ne Cheikh Bara Ndiaye jamono bii ñu toll mm-hmm. wér gu yaramam doy na waar doy waar bu jiggi dayoo mënul dul boppam dara bu ñu ko indi woon ci plateau boobu teg ko képp wane image am yi ndax xàmmee ngeen kii dañ naan xaw nañ koo xàmmee baa ñu ci jiixe jaax waaye dimmam sa soppiku na lékkatut naanatut mënatut boppam dara itam. Uh-huh. te lii mu dogu ku ko xam. te muy lu sérieux ci moom ba mu tàggu ci ay kilifaam. wax ay bokki boppam itam. biir na ma ne man na maa waat ci Serigne Touba ne. lii ma wax moom dana ko def mooy jëmmam dina ñëw ak ruuxam wala wala ab néewam ñëw ci Touba. Uh-huh. ak léegi nag lekkatut uh-huh. naanatut. situation de santé situation de santé mi tam jéggi na dayoo. jéggi dayoo gi itam yegg na ci ñun ñi di ay mbokkam ay kilifaam itam oh. buñ ñu woowoon léegi léegi léegi la seex Cheikh Bara Ndiaye faatu na giñ naa ko Cheikhul Khadim dama ko jeexi jaaxa biir na ma naa nekk léegi nga baal ma euh, euh, léegi nga baal ma sëñ Babacar euh, déggoon nañu ni dem ngeen ci sëñ Muntaxa ba mu ni mm-hmm. woon yëg xameewu ko woon noonu kon boobaak léegi kilifay tuubaay Tuubaa dox nañ ci waaye ba léegi daal daf mel dañ leen a tan xam lu xam nga Cheikh Bara bu ko téyee téyee nga doomi Tuubaa mm-hmm. Cheikh Bara ci Tuubaa la bokk Mhm. kenn mënu koo génnee ci tubaay itam buy dund Touba la bokk buy dee itam Touba la jëm mhm. Touba ko jaral itam ndax Serigne Touba ko jaral lii mu wax itam muy màggal gi ñu dëgmal njabootu Serigne Darou Hassane Ndiaye njabootu ndam njabootu Serigne Omar Bousso bu Serigne Bousso bi ki nga xam ne ñoo di ay nijaayam Serigne Ablaye Bousso Serigne Amdi Bousso Serigne Bada ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dox nañ ci wax ca lañ ca war a wax ànd koog sëñ Abdou Samad itam ak boole njabootu sëriñ Sohaybou gépp itam nag mm. dox na ci wax na ci di fàttali itam sëñ Abdou Samad moomu itam mm-hmm. sëriñam la mbokkam la waaye itam borom la woon ndax baara yor na doomi sëriñ Sohaybou di caatum sëriñ Sohaybou Mbàkke ibnu Xaadimu Rasuul Samad moomu itam dox na ci wax na ci mm-hmm. jamono bu ne kenn ku ne wax nga ci la nga ci war a wax waaye daal li am solo te am solo te mat a bàyyi xel mooy mm-hmm. sénégalais yiy laaj mbokki baara ñàkkuñu lu ñu war a wax abokkaay baara tëliwuñoo wax waaye nag li ñu tëwër mooy li mat a li seedal Sénégal yi daal mooy baara toppuñu woon jëmmam amul fu mu demoon dañuy jàpp jëmmam baa ñuy wane image naa ko yaa def nanga wala yaa demoon barab sàngam waaye li ñu doon toppee baara mooy ay téléphone am yooyu nag juge setal na téléphone mu set wecc loxo jimmi baara ba fii may wax yow ma nga ca kaso ba baara lekkatut naanatut mu ngi ci grève de la faim situation de santé jiggi na dayoo ba jiggi dayoo li la waxoon léegi rek it wóor na ma ne la doon kon baax na incha allah kon xam naa ni eh, Mamadou Matar Sarr ci ndaje mi ngeen di woote ngir di waxaale it itam sénégalais yi ci acte am solo boobu ngeen di def itam mhm. muy reeteet la ba tey mooy stream boobu ñu a def gaawu ci wal fajiri wala képp koo xam ne yaa ngi saboo sañ baaroo nga di ko bàyyi xel mhm. na ko waajal te yitteel la waaye nag mhm. képp ku mën di waaj loolu itam na nga jàpp ne balaa gaaw buñ ne laa onze heures wala ginnaaw tuktaan nañu waajal baara ju Tuubaa itam moom la bett ndax yoon wi ñu tegoog moom ak situation bi baara nekk hmm. buñ ma woon ne ma faatu ngay du ma bett ndax moytul boppam dara jërëjëf daal ok jërëjëf kon mi ngi noonu Serigne Babacar Lo ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di ko ñaanal bu baax en tout cas mar Italie rek la ñuy wax euh, fàttali na ko ci biir Serigne Mountakha def na li mu war a def Serigne Abdoul Samad dox ci moom i tamit euh, jéego yu nekk ak lu nekk def na ko ci waaye ñan ñoo tànqam lu euh, jéego yooyu daal ma jigéen moo jaaxal ñëpp ginnaaw daal bi ñu dégloo lii daal ah jigéen. waaw. en tout cas yàlla bu ñu àgg foofu son yi bu mu metti loo xamante ne mu nekk loo xamante ne lu metti la donc yaa ngi wax ne euh, sëñ Mountakha Mbacké Bachir dem nañ fa yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér euh, def na la ko war mm-hmm. donc ñi tànkam lu tamit son yi bu soxlawul sax ngay demandé ñan lañ parce que am na ñoo xamante ne nii tey jii nii mm-hmm. suñu bëggoon balaa yi onze heures ñu bàyyi waay mais juge bi def na lu waroon def ki ko fa téye woon def na lu mu waroon def waaw léegi kan moo ko. kan moo ko téye waaw c'est le procureur. Ah, waaw léegi nag kan mooy procureur kan mooy kan mooy kan mooy njiitam ministre de la justice. ministre de la justice <laughs> président Macky ah. Sall. donc nekk na loo xamante ne nii fa dëgg yàlla fi ñu toll nii son yi lu sérieux la te waruñu caaxaane yenn yi xam nga li muy wax nii mooy que ni ñoom. Hmm. dem nañ ba fi ñu nii ñàkk ko ak. am ko mooy mooy commencé di dugg te loolu nag bis buñ ca tollee loolu mooy indi nag leneen loo xamante ne nii kenn ñaanu ko te kenn du ko souhaité son yu boobu alaaji waaw d'abord ñi ngi nuyu ki doon wax léegi Babacar la waaw ñi ngi koy nuyu di wax ni lii mu wax moom uh-huh. euh, lu ñu mën a confirmer la waaw que ni baara moom uh-huh. jël na décision moom du dellu ginnaaw ci li nga xam ni wax na ko uh-huh. waaw loolu nag parce que dafa am loo xamante ni moom dafa jàpp ni parce que toog nañ yow mii ak man ak moom. waaw parce que dafa am loo xam ne question de kii la quoi. Mhm. dignité si. waaw ah, loolu moom la njëkk a teg mhm. parce que bu fekkoonte ni sax am na lenn loo xamante ni bi gis nañ ko ñu mën a wax mhm. waaye question de dignité la te jël na décision te fi mu toll nii euh, sonn na dëgg la ni ko mbokk yi yëpp donc nag ñun nag wax dëgg fa yàlla mm. chaque jour dañuy toog fii di ñaan. wallaay te duñ wax ni dégguñ ñu. Mm-hmm. jour fii lañuy toog di ñaan. Mm. kilifa diine yëpp ñaan nañ. Mm-hmm. c'est lan mooy problème bi quoi. waaw fan la mbir mi nekk. nit ñi dem nañ ba ci sëñ Muntaxa mu ne xamewu ko woon yëg ko woon. Mm-hmm. waaye dana ci def yitte. ba nëgëni. dara njaboot gi di wax ba tey Cheikh Bara warutoon a yegg si ci grève de fin yi mu yegg yi fi mu toll. dañ ko delloo ay téléphone am sax alaaj warutoon a yegg fii quoi du maanaam du kuy heurter réew mi mi ngi fii këram njabootam a ngi fii waaw nañ ko bàyyi mu dem këram toog donc nag mbir maa ngoog Sénégal nit ñaa ngi gis en daal mbir maa ngoog baax na waaw mbir mi mi ngi noonu ñi ngi ñaanaat encore une fa pour ñu tegg ko loxo mu delluwaat si njaboot loolu aussi ñu ngi koy ñaanaat encore une fois mi ngi noonu kon ba jërëjëf xam naa gars yi ne foofu féete eh, dina ñu dégg nañu woote boobu dinañ dem wuy ji famille bi incha allah ci eh, li nga xam ne mooy conférence de presse boobu ñu bëgg a def eh, pour daal joxe déclaration bi sëñ Baara joxe. ak sitting bi war a am fii ci buntu Walfadjri. fii ci buntu Walfadjri incha allah que ni daal sëriñ Baara nee na ko bis bu ñu ma bàyyiwul ma màggali Touba ak sama bakkan daal leneen lu ci amit daal tabarkalla te yàlla bu mu ci am dafa am lu xew ca pikin démb sax li xew a tax am ay rajo yu njëkkante ba def ko ci seen journal